loolu daanu Guiro Seras sukk na ko waaye taxul Guiro Seras daanu moom bëggoon na ko ba léegi yaay si lu muy def Guiro Seras su muy def ba génn si moom ngay gis mu mën a kat appui ca jaajëf sant képp ku jàpp ci combat bi ak képp ku doon ñaan la mu doon wax ay adversaire lañ duñu ay noonu waaye bi mu doon peut-être suma rakk la ñoom ñëpp laa ci mën a wax yàlla may na suñu ñuy ak ndam maa ko ñaanal prochaine fois mu am combat boobu it bu bëre kenn ku dul bawal it yàlla na ko yàlla may. mais yéen aana forme bi fan fan la ñu ci lépp am ci non di liggéey ak booy mi rek gis nga booy yi moo nekk ci ay frère am laa nekk. ñu ngi travaillé ensemble bon maa ngi di ñaanal ñoom ñëpp. mais Tafa Ndiaye mais ñëpp. ay moromam jëm champion yëpp jëm. mais li mu bëree noonu ko ko bëree loo. mais fekk nga ko ma koy yàggam bi. an an an an an heure bu àll toll nii Ndiaye di nga entraîné di sant ñëpp di gërëm ñëpp. nga xam ne kon am naa kontaan gis naa taxawaay bi gis lépp